ahlan wa sahlan ci yéenekaay yi mbokk mu ngi noonu ñàkk bii di AstraZeneca ñu tànnoon ko ngir xeex mbas mi ci biir àdduna bi nemmeeku nañu ko réew yu bëri jamono bii dañoo ajandi ci jëfandikoo gu ñu ko jëfandikoo La moom itam ne ba xam réewum Sénégal du doxoon la ajandi ñàkk bii di AstraZeneca fii ci biir réew mi waaye journalu Soleil bi mu laajee immunologue bi nga xamante ni mooy Tandakha Ndiaye li mu xam ne ni mooy réewum Sénégal mën na wéyandi di jëfandikoo ñàkk bii di AstraZeneca L'Observateur itam xëy jukkil ñu ab jàngat bu yaatu ci ñàkk yi moom L'Observateur li mu xam ne ni mooy doon donte campagne bi ñu ngi ko doon wéyandi fii ci biir réew mi nemmeeku nañu ci biir réseaux sociaux yi am na ñoo xamante ni gannaaw bu ñu jëlee ñàkk yi ay cas de malaise la ñu nemmeeku ci ñoom waaye nag loole kër docteur yëguñu ko benn yoon dakaar Times moom itam nee na AstraZeneca xaajal leen li nga xamante ni moom mooy adduna bi xaajaloo bi fi amoon jamono yu ñu weesu ci làngum politique bi yéene yu bëri tey moom la ñu xëyee dëgtal ñu nataalu kilifa diine yi ku ci mel ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ndax ay jéego yu nga xamante ni doxoon na ko ci ba suñu réew mu ne dellusiwaat ci jàmm journal Rewmi Quotidien xëy di tën ñu nataalu xalifa général des mourides ak Abbé Zak Seck ngir jéego yi nga xamante ni amal nañ ko ci fan yi ñu weesu ngir jàmm mën a amaat ci biir réew mi Le Témoin moom di ñu xamal ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jamono bii sol na dàllu alaaji Abdou Dabakh Malick mi nga xamante ni saa yu réew mi mos a yëngu rek ci moom lay dem ndax moom Serigne Mountakha duggal na loxoom bu baax a baax ngir jàmm mën a amaat ci biir réew mi. le critique moom dañu wax ni Touba jël na pouvoir bi ba tey ci wàllum woote jàmm gi nga xamante ni ñu nemmeeku nañ ko ci biir réew mi suñu kilifa dina yi jamono bi la tribune mu ngi ñuy xamal ni ñu ngi bu baax a baax njiitu réew mi le président keneen ku ñu doon surveiller ba teg ko loxo moo di activiste bii di Ousmane Tounkara le serviteur xëy moo tax ñu daal koy teg loxo moom Ousmane Tounkara foofee ci États-Unis Les Échos moom xëy du xamal ni moom Ousmane Tounkara réewum Sénégal moo ko porte plainte ngir terrorisme ak menace de mort foofee fekk États-Unis lañ ko daal di teg loxo. ñu tëjee ko ak journal L'Observateur bi xëy def gëstu gu yaatu ci yenn tuuxi doona yi nga xamante ni day mu nekk gàcce ci xale yi jigéen ñi ci jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo WhatsApp fii ci biir réew mi mbokk yi jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah.